voilà salaamaaleykum ñi ngi ak euh, Cheikh Abdou Nougoum Nougoum ci 24 actu Cheikh Abdou euh, corona bi sa masque bi moom mbaa amul beñe mbaa peeyon ci biir non masque yi du ma faral di def yooy waaye damay damay sàmmonteeg li gars yi wax rek comme que yëfi moom daa war ñi gëm nañ ko ñi gëmuñ ko te mu jaar siin toj ko rey fa nangami nit jaar France ak ñëw Sénégal gi ñu koy lam-lame nañu wut masque yi tey sol te bañ cee nuux dara nag daray lekk moom ci dugg loolu mooy ndigal li la doon wax ci cas communautaire yi ci Touba ah cas communautaire daal bari na kenn ku ci nekk daal bu fekkente ne li ñu wax yaa koy dégg te di jëfe vingt lañ wax na ñëpp toog 19 heures nga dëpp maye sa 30 minutes jàmm salaam rek nga man sa 30 minutes mais léegi dañ ko prolongé léegi yokk nañ ko beneen amul benn problème une heure de temps yi ma leen may du leen du ma wàññi dara parce que sax boo koy seetaan dina am te boo dee ba ca kanam day am dara rin Cheikh Abdou moo sil may na loolu <laughs> mais euh, ñu gis ni euh, couvre-feu bi noo ko noo ko noo ko dundee yow ah dund gi daal mooy bu fekkente ne dangaa dem ba 18 heures li ngay soxla ci guddi gi yëpp ndugg ko bale boo tëddee boo xiifee jug lekk boo maree jug naan tëdd ta xam ni waxi luwaa la te comme nguur nguur moo ko dogal moom ponkal ma nguur du dóorloo moom du la yëram te fa dal baax na lay wax del teel a tëdd tey ndugg li ngay soxla rek loolu mooy solo si ko ah, wax yàlla yëm na ma yëm ngoo xam ne mënee su ko wax ndax wax dëgg yàlla saa kaa kaa yoo xam ne day mel seen biir kër lay yeewoo 60 50 40 léeg-léeg sax nga dem ba 100 di ñoo lang ndoxu ba 100 nangam loolu moom day bëgg a bari kaay nañu dimbal nag Touba moom jiwunu coronavirus dara lu ñaaw ba mu nuy indil ay cas ay nangam fii lañ ko njëkk a joxe ñaar téeméeri kaamil hmm. fii ko njëkk a joxe ñaar téeméeri million kaamil li ñu ko wàcceel kenn xam ne mu ñun ko wax mu waxoon ko xool ba mu yàgg ko sama bokk jinax mbaa dara méttiwu la mënu ko yow moom lu mën a xew nag ma bàyyi jeexale li may jeexale mooy wasalaamaaleykum di leen abonné ci 24 bi ndax mooy yëf yi di leen abonné di sem tay commentaire man Cheikh Abdou Nougoum Nougoum mi Thierno foo mën del ñëw te bàyyi nëbbatut naan bi ku ñàkk fulla nga nag man xam naa la Cerno sama wëllër la waaye day nëbbatut naan day def yi fi saay saay ay gal li mu coor kenn xamul ku mm. wax leen ci Cerno danaa ko police mais Cerno moom léegi la ñuy jeexale sa gal ba nga lan la la jënd loo woon ah <laughs> non am na la jënd loo woon ñaar leen daf ci am koo xam damaa jënd loolu li ñuy takk ci ndigg yi gerte yi ñorut yooyu am ci koo xam ne nag daf ne ma iPhone 11 la bëgg te iPhone iPhone 11 njëgu daaru saw la te newu fi billaay damaa sonn billaay damaa sonn